wëy leen di gën a abonné ci seen site d'information bi di li ci réew mi TV li ci réew mi TV di seen sit bi leen jox mbooleem information en temps réel ci anam ya ngeen ko bëggee dal leen ak jàmm ñu wax ci wàllum xibaar yi tàmbale ak wàllum làmb wax ci Gris ak Ama Baldé bi nga xamante ne si war nañoo sëgg mu di nag combat boo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy xaan ni ki samedi ëllëg ji nag war nañu amal ab jano face à boo xamante ni si mu ngi war a dox ci diggante Tigre Fass ak doomu Falaye Baldé bi leen bu di Ama Baldé la ki tey ji lañ koy xaarandi wax ji ak tontu jàppante ji mu di nag combat boo xamante ni si ñaari gone combat avenir ci diggante ki nga xamante ni si moo di Ama Baldé mi jógee ci défaite ci diggéem ak Modou Lo ak Gris Bordeaux bi nga xamante ni moom itam ci défaite la daal dee jóge mu nag combat boo xamante ni ñoom ñaan ñëpp dañ cee war a jaare relancer wu ku ci ñàkk rek loolee mën na indi lu bëri loo xamante ni si moo nar a gàllagoose sa carrière moo tax nag mu nag combat boo xam ne ñu bëri jàpp na ne combat bu nar a am solo la combat bu nar a ubbeeku waaye itam ku nar a tëju ndax itam ñoom ñaan ñëpp ku ci daan mën nga ubbeekuwaat gën a yéegaat waaye nag ku ci ñàkk mën nga doon li nga xamante ni si dina xajamal lool sa carrière gannaaw bi nga xamante ni ñoom ñaan ñëpp nag ci ay défaite la ñu dal di jógee wéyal beneen ko xibaar xibaar bi naka àddu naka ci wàllum politique loolee moom dina neex lool naka ñi seetaan naka déglu ndax plan décennal ñeel naka wàllum gestion des inondations xam ngeen ni ki démb moom premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement bi ñu daamal ab conseil interministériel ndaje boo xamante la ko tax a jóg moo di waxtaanee ay pexe yu ñu yëkkatee kàddu moom Elimane Diori di Ousmane Sonko ne lépp lu nga xamante si moo di wàllum koppar toll naka ci 717 milliards mu di juróom-ñaar téeméeri milliards ak fukk juróom-ñaar yoo xamante si nguurug Macky ne woon nañu naka dugal nañ ko ci wàllum inondation xeex mbënd moomee loolu naka daanañu amal ab audit maanaam càmbar ko ba xool nees war def rek ba xam xaaj boobee la dugg ndax fañ ko dugal foofu la am déet lu si xamante ni bëgg nañ koo xeexee ak mbënd moomee nag bokk na ci nag ñu fexe bu askan wi ku nekk sóob sab loxo boo xamante ni dina mën a ñoŋ su ko defee nag moo ngi dund ay jafe-jafe ci taw yu bëri nga xamante ni moo fi wàcc te saa wàccee nag askan wi dundee jafe-jafe moo tax nag fintoon yi Ousmane Sonko ne faaw ñu càmbar loolee xoolaat ko bu baax waaye itam gaaw xool bërëb yi nga xamante si ndox mi daf leen a sonal ko defee ñu saafaral ko bu mu gaaw su ko defee nag bu tawee dara ci jafe-jafe bañ a am ci réew ma Sénégal beneenu ko jafe-jafe boo xamante ni si moo di wàllum faux billets faux billets yi nag moo ngi di gën a bëri ci réew mi ni ki démb rek douane dal dinaa defaat beneenu ko site boo xamante ne amal na ko fa ca Thiès ba ñu ko xaymaa nag ci daanaka toll na ci juróom-ñaar téeméeri milliards yoo xamante ni si ñoom la ñu daal di tegate loxo gannaaw fan yi ñu weesu nag nga xamante ni si tegoon nañ ay loxo fi mu toll nag mbir mi moo ngi gën a bëri li nga xamante ni si moo di wàllum faux billets yu toll ci juróom-ñaar téeméeri milliards Daara wéy leen di gën a abonné ngir benn xibaar bañ na rëcc à temps réel ci anam yi ngeen ko bëggee jërë ngeen